commission d'enquête parlementaire bi nga xamante ni ca pencum ndaw réew ma fa lañ ko sampoon commission boobu ñu ngi ko sampoon àllarba ñaar fukki fan ak benn ci weeru janvier bi ñu génn waaye mel na ni commission boobu dañ koy daal di gas suul ndax lu ko waral moo di procureur gannaaw gi ñu amalee ab plainte euh, kenn ci juge yi ñu tuumaaloon wàllum ger ca conseil constitutionnel di Cheikh Ndiaye dugalee plainte am plainte boobu nag instruire nañu ko maanaam ubbi nañ ci information judiciaire ndéem nag yoon jël na yëfi commission d'enquête boobu liggéeyam da koy daal di dakkal ca saasa loole nag euh, euh, ci ab communiqué la ñu ko waa assemblée nationale xamle rawatina commission bi ñu dénkoon yëf yooyu le te ko nekk ca bopp bi di président groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar di Abdoul Mbow kon moo ñu xamal ni euh, yoon daal loole la digle Euh, ci résolution 01 2024 donc euh, ci lañ sampoon boobee commission parlementaire waaye article 48 li mu xamle moo di ni saa bu yoon jëlee euh, mbir mi bu ko enquêtal boppam ñoom député yi dañ ciy daal di raxasu ba mu set wecc kon commission boobu di fàttali rek ni wàllum guerre la ñu tuumal ñaar ci juge yu conseil constitutionnel Euh, commission bi ñu ngi ko samp ci laajub ñii di waa parti démocratique sénégalais ñoo laajoon lu ni mel ndax jàpp nañ ni seen candidat dañ koo bedd ci yooyu la élection te am na lu doon ñuul ci soow mi ba taxoon ñu bëgg ñu leeral ko kon euh, ci euh, wote ba nag ñu jàpp ni téeméeri député ak ñaar fukk ñoo voté woon ngir ñu samp boobe commission ñaar fukki député ak ñeent ñoo lànkoon bañ lu ni mel